suis avec vous. général. waaw sa gis lii. gis nga ma tey. chef suprême rek ko ko sañ. waaw. ñëw rek. da nga leen a gën a fort rek. waaw c'est fini de. zéro bi mbaa un bi rek topp ci six bi. waaw. zéro bi mbaa un bi rek. waaw waaw waaw waaw moom bismillah ñëw ni sëddeen dégg nga. waaw. ah. <laughs> amiin. ah kon nag xanaa. waaw mu koy safar jëm. sant naa ko moom. waaw kii. waaw ak kii itam. te mooy Abdou Aziz Mbaye. Abdou waaw waaw waaw. waaw. dimbali ma rek. ñaari mbir d'abord xam nga waroon naa leen wax loolu moom xam nga maa leen xam nga man maa libéré wu. voilà libéré wu ma. waaw loolu moom bëgg naa ci. seen ñaan yi. mbetteel bi moom mbetteel bu mu mbégteel. pourtant yéen ñoo xam ne moom mat na nga def waaw ñu ngi sant bu baax. waaw moom moom jaale si woon na. waaw waaw waaw moom yooyu woon de. voilà. non moom dama dama ko teggiloon waaye nag. moom dama ko fa teggiloon dama ne ko. waaye nag dëgg la dëgg la waaw ñu ñëw. waaw barke Ndeye tabarakallah waaw comme xam nga comme ñëpp dañ ma daf ci yow. waaw ba noppi te man euh, jawal at jawwal damay wëndeelu waaye nag ñoom il faut ma jox leen information dama laa waxoon ni la dina ma dégg nu nekk. nu nekk positivement négativement waaye xaar ma ma ñëw waaw. léegi nag li may def wax naa itam avant-hier ni lu ma defoon Abdoulaye Wade dinaa la defal lu ko maa ko wax tudde la doom tudde sa soxna doom hmm? léegi nag bu ko defee comme am na lu ma waxoon xale yi dafa ni leen ñoom dañoo maîtriser porte à porte ñii nañ leen bàyyi ci seen liggéey ci seen façon te nga bañ leen a def loo porte à porte ndax loolu xale ko man ko man te commune bu nekk rek am na fa xale yi leen ko mën a defal yéen ngeen nekk seen liggéey man daal loolu mooy ci sama sas. waaw maanaam man dinaa jox xale yi dinaa wut euh, soixante six mille euh, jeunes yoo xamante ni bii porte à porte mooy doon seen métier. discours bi du daal loolu gàtt la waaw may leen ko mu eggale liggéey yàlla premier tour six bi mooy jërëjëf teeti zéro lañ ci teg wala un. 61 wala 60 rek. 61. 60 wala 61. waaw 6 bi dama ko waxoon ni ko loolu màggalu Tuuba laa ko waxoon ne xale yi 6 bi nañ ko ci tegal zéro ca kanam wala ñu tegal ko ca 1. su ma ko xasee wax rek. bu ma ko xasee wax. bu ma ko xasee wax dañ koy mentionné ca kaw. waaw. bu ma ko dëgg. <laughs>